Euh, su ngeen ñu gisee tey ji ñoo ngi fii ci euh, ñu koy wax euh, montagne sainte di al buqaa mubaraka fii ci jumaay sëñ Tuubaa yi dajaloo fi ak mbooloom ñi nga xamante ni ñi ngi waajal xew-xew bii di Crown Mayumba ñu nekkoon nag doon waxtaan ak mbooloom ñi nga xamante ñoo yore ñoo tënk commission culturelle bi Eh, li ko tàmbalee ci eh, ñi nga xam ne ñoo jàng alxuraan ak ñi jàng xasaayit ak eh, ñi nga xam ne ay communication lañ ñëpp rek ñu waxtaanu ñoom ci li nga xam ne mun lañ bëgg ci karawaan bi mooy ay digle ndax dañoo seet nekat mbirum sëñ Tuubaa fi mu toll dafa toll foo xamante ni buñ ci waxtaan dañ ko war a tibbee fu leer ñuy ñaax mboolo mboole yi nag ñi fiy ñëw ak ñu nekk ci biir ñëpp kenn ku ci nekk na nga bàyyi xel ci loolu ci programme bi nga xam ne moom la ñuy tëral ngir dañoo bëgg daal képp koo xamante ni yaa ngi jël micro di wax euh, na nga ko euh, jële fu leer te it euh, ñi nga xam ne yi aussi seen micro ak seen i waxtaan daal nañ koy jooyee la jëme ko ci commission culturelle bi sëñ Fall bu ngi fi ak sëñ Seexuna ñoom lañ fi teg ñoo xamante ni ñooy saytu mbooloom waxtaan wi yëpp daal fépp fu ñu dem daal ci barab yi bëgg nañ ñi nga xam dañu dañoo yor micro ak seen i télévision ak seeni rajo ñu euh, màcc jëm ci ki nga xamante ni ñooy yore commission culturelle bi sëñ Fall bu si ngi nii ak sëñ Seexu naa incha allah loolu daal lañ bëggoon euh, ñi ngi bëgg mbooloo mbokk mbooloo mi ñëpp rek euh, ñu jàpp ci loolu incha allah jàppale ñu ko ci liggéey bi ndax liggéey la boo xamante ni noonu lañ ko bëgg a ren bëgguñu daal kenn ku ci nekk foo ne nga dem nga jëm fa bala wax déedéet da ngay bëgg daal kenn ku ci nekk li ngay wax nga teg ko ci xam-xam loolu daal moo taxoon suñu jotaay bii nga xamante nañ waxtaan ci ba fii ci jumaa sëñ Tuubaa ji incha loolu daal mooy waxtaan ñoo ngi leen jégalu baax wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Sur les traces de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul au Gabon Tawfekh Production di si ànd établissement Mbaye et Frères Techno Habitat ak Digital Store ngir gunge leen ci bisu tedd yooyee